salaamaaleykum mbokk yi dama leen doon yëgal ne dañu ubbi benn centre Covid ci Paris 19e centre bi ñu ngi ko jagleel ñi nga xam ne dañoo am yëg ci seen yaram firnde yu feebar bi nga xam ne coronavirus moo koy indi maanaam ñuy sëqat walla seen yaram tàng walla seen bopp di metti wala seen yaram yëpp di métti wala ñu am problème pour noyyi ñu am jafe jafey noyyi ñu ngi koy jagleel itam ñi nga xam ne ñi ngi am firnde yooyu ba pare amuñu médecin traitant wala seen médecin traitant consulté tul walla seen médecin traitant du def euh, téléconsultation bu fekkente ne ñaar yooyu ci kaa yooyu ngeen bokk mën ngeen euh, woote ci centre bi ñu ñu boole leen nag benn médecin consultation yi nag kenn du fay léegi nag dañu leen bëgg a xamal itam ne centre bi du centre euh, dépistage coronavirus c'est-à-dire que mënu leen ñëw nii da ngeen di seet ndax am ngeen ko wala amu leen ko képp ku fay ñëw daal da nga war a am rendez boo amul rendez-vous kenn du la jël ndax dañuy bañ dajaloo bi après feebar bi di gën a law bu ngeen bëggee am rendez nag da di dem ci internet ci site doctolib point fr ngeen tapé centre Covid Paris 19 wala itam ngeen woo leen ci numéro bi nga xam ne mooy.